sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 daarayni auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmaani irahim alhamdulilahi rabbil alamina wassalaatu wassalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadin il makin wa ala alihi wa ashaabihi ajmaina ixwata al imaani wal islaami wal ixsaani wal iraadati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki M Media Group nuuru daarayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan di sàkku ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu suñu rëcc-rëcc te nangu ñu suñu jaamu yàlla di jëyi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama di ziyaare ñépp rek di leen ndokkeel di jël ziyaar bi ak nuyoo bi di ko teg ci loxool kilifa gi muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ñaan yàlla subhanahu wa yàggal ko ci suñu kanam lool bu baax a baax ba li mu yéene liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal maam xaadimu rasul mu am kàttan gi ak man gi te nu àndoog moom bi jaay sidna muhammadin sallallahu taala alayhi sallama kon tey ñuy jéem a ñëw rek ci fatwa bi xool li nga xam ne lii moo fi ñëw ci ay laaj ñu jéem cee laayante biir rek euh, di ziare mbokk mi nga xam ne nii moo fi indi laaj yi tey muy Cheikh Alioune Badara njaay mbal mi ñu ngi koy siyaar bu baax a baax di ko ndokkeel di ko ñaane yàlla moom itam yàlla gën a dëgëral taxawaayam ak xam-xamam ak yittewum diine ak bëggam lu baax ak taxawaayam bu am solo loolu ci liggéey bi am na ci yitte loolu wax dëgg yàlla yoon nañ ci yàlla dana jàppale bu baax a baax bi jaayi sayyidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallama kon suñ bada tey dafay indi laaj yu amati solo bi ci jëkk muy lu aju ci wàllu julli muy laaj sujuudu sahwi te mooy sujjuut boobu nga xam ne bii nit ki da ko war a def su fekkee ne dafa juum ci ak julli ci lu bokk ca sunna ya maanaam mu wàññi ca sunna ya dara wala mu yokk ca sunna ya ci biir julli gi ci loo xam ne lii njuumte la te bañ nekk ak tayeef waaw sujjuut boobu daal euh, ki nga xam ne dafa juum ci biir julli gi euh, am lu mu wàññi ci sunnay julli gi wala lu mu yokk ca sunnay julli ga loolu lañu naan day nekk sunna bu ko nit ki defee bu fekkee ne dafa yokk ca sunna ya bu jullee ba julli gi jeex ba mu sëlmal mu sujjóot ñaari sujjóot yooyu daldi taayawaat daldi sëlmalaat su fekkee ne dafa wàññi ca sunna ya su jullee ba julli gi àgg ba mu taaye bala sëlmal maanaam mu bu taaye ba noppi Eh, sujjóot ñaari sujjóot yooyu daal di taayawaat daal di noonu la ñu defee sujudu sahwi li mu ci laaj nag muy ki nga xam ne kii dafa war a def sujudul xabli lii dafa am ak sujudul baad yi mooy loolu mooy wax mooy sujjóot bi ñu war a sujjóot bala ñoo sëlmal ak sujjóot bi ñu buñ ko waree sujjóot bala ñoo bu ñu sëlmalee ba noppi bii nag day laaj moom ki nga xam ne kii dafa wàññi ci julli gi sunna yooyu may wax waral na sujjóot balaa sëlmal waaye mu fàtte ko ba sëlmal euh, kon nan lay def sujjóot yooyu nga xam ne yii moom la waroon a sujjóot balay muy sëlmal te fàtte ko ba sëlmal kooku dañ ko naan su sëlmalee fàttaliku ne waran naa sujjóot kat balaa sëlmal euh, kon ba tey day sujjóot sujjóot boobu sujjóot yooyu da koy sujjóot daa di taayawaat daa di sëlmal noonu euh, daal la koy defee sujuudu sahwi daal bu dee bi ñu war a def njëkk ñuy sëlmal la ak bi ñu war a def bu ñu sëlmalee ba noppi boo ci fàtte rek maanaam jaawale ko boo ko boo ci war a def fàtte ko rek euh, mën nañoo remplaçante bu dee xabla la nga fàtte ba sëlmal euh, dañ ne mën nga ko sujjóot su fekkee ni diiru bi nga toog yàggut wala jóge goo fi nga doon jullee wala génn goo ci jàkka ji dañ daal fekk nekkul diggante bu yàgg yàgg la nga dog koy fàttale ko di ko mën a sujjóot waaye nag dafay am ci borom xam ñu ne bu demee ba yàgg nag loolu sujjóot boobu sax mën nga koo bàyyi ndax nag dafa baax lool waaye sunna la kon bu nit ki fàttee ñaare bi nga xam ne bii moom bëb jëkk la maanaam ko war a jëkk a sujjóot bala muy sëlmul fàtte ko bu yàggee Euh, dañ ne maanaam wàcc na ko jarul mu koy sujjóot sujjóot bi nga xam ne nag moom nga war a sujjóot boo sëlmalee ba noppi boobu lañ ne moom saa boo ko fàttale koo rek moom mën nga koo sujjóot terewut it boo ko sujjóotut it maanaam du ko yàq nag waaye dañuy bañ daal nga bàyyi ko ci sa coobare waaye boo ko fàttee wala nga maanaam mu dem ba yàgg nenañ boo ko sujjóotut it du yàq ci julli ga dara julli ga day nekk loo xam ne lu wér lu wér la beneen laajam bi ci topp mu jëm ci wàllu soxna yi yooyu nga xam ne dañ koy def ci seen yaram lu mel ni yokk kawar boobu ñu def ak euh, wey yooyu nga xam ni dañu koy def ci seeni baaram ak xef yi nga xam ne dañu koy def ci seeni bët bu ñu amee ay xew ak yooyu yooyu daal xam naa ni ñu koy defee ni ko soxna yi defee moom euh, bokkut ak sharia dara dara dara sharia niwu ca lenn loo xam ne li na ko yit amu ca kon loolu lu jullit moytu la moo xam góor bi la wala bu jigéen bi la nag ñoom ñëpp ko seq bu dee soxna si koy def la lu ko lu war a moytu la lu mu war a bàyyi la bu dee ni borom kër bi ko ciy seete ni tam mu di ko def mun a xam ne la cay nekk ci bakkaar moom euh, da koy ànd ak moom ñu bokk ko Euh, nit ki moom lépp loo xam ne li bu ko defee ci yaramam maanaam bu waxtu julli jotee du mën a jàpp ngir ne day sàmm loolee mu def ci yaram ngir mu bañ a yàq loolu dafa araam baaxul ci julli te su ko jullit defee bàkkaar lay doon ci moom bu rëy rëy rëy kon loolu muy wax ne soxna yi yooyu ñuy def buñ ko defee maanaam ne du ñu jàpp ngir bu ñu jàppee day yàqu képp koo xam ne kii yaa ngi def loolu na nga xam ne yaa ngi def lu aram yaa ngi def lu wuuteeg sharia te yaa ngi cay am ay bakkaar yoo xam ne yii lees war a tuub la lees war a dellu ginnaaw la jégglu ko balu ko yàlla jéem ko bàyyi bañati koo def loolu moom mooy li nga xam ne buñ ko doon tënk rek euh, noonu dong la fa demee lu araam la lu baaxut la lu jullit wërta def la euh, soxna si loolu muy teg ci boppam ngir ne day bañ mu tooy maanaam mënatut a jàpp benn anam ba njàpp ma baax deesu ko masaa ndax boo massa ca kaw du baax ndax da jël ci kawar gi yokk ci loo xam ne lii bokku ca kon euh, loolu ñu def ci bopp yi ñu ne dañu bu buñ doon jàpp ndax buñ ko massa ci kaw noonu rek mu a baax du baax ndax dafa dox diggante fi ñu war a na masaa muy bopp bi ak fi ngay masaa noonu kon daal loolu lees wara a moytu la lees war a bàyyi la lu yaatu la nag lu ñu dëgër bopp sax ci di ko def faale ñu ci dara waaye xam nga ne jullit boo xam ne bii day toog bésab lëm du jàpp du julli wala lu ko ëpp loolu nañu xam ne lu araam la lu baaxul la ay bàkkaar yu rëy rëy la yoo xam ne ñu ngi ci nóor di ko def te ay musiba dong la leen di andil ñoom ñu koy def loolu mu waxit ne Euh, soxna si da koy def ngir ne moom jëkkëram dafay nekk mu defaru noonu ne maanaam du ko dindi fekk jëkkër jaa ngi fi euh, loolu moo gën a tee nekk musiba moo gën a tee araam moo ko gën a tee garaawal ndax euh, loolu muy laaj ndax di wax aqi jabar ak jëkkër maanaam benn jëkkër amul sañ-sañat maanaam di digal sa soxna loo xam ne lu araam la euh, mu di ko def nga di ca bànneexu loolu ku ko def na nga xam ne yaa ngi def lu araam yaa ngi dimbali nit ki ci loo xam ne lii lu araam la moom soxna si tam bu ko jëkkëram digalan loolu itam bu fekkee ni jullit la nekk di dund ak jullit loolu da ko war a bañ da ko war a def waaye waru caa ànd ak moom waaye jëmmi nag ne damay defal sama bopp duma jàpp duma julli ngir di ko bégal sama jëkkër loolu moom lu araam la dafa araam ku koy def na xam ne mi ngi def lu araam lu baaxul loo xam ne lii bàkkaar yu rëy rëy la ci amee ndax nag biñ ne soxna si na topp jëkkëram jëkkër ju ragal yàlla ju doon ab jullit di jaamu yàlla nekk ca di jaamu yàlla di ko digle di ko ko digal moom soxna si moom la nga mu topp ko waaye waxuñu nga topp sa jëkkër ji nga xam ne ji maanaam da lay ci di la defloo lu araam di la digal lu araam ngay def lu araam di ko seet jooju jëkkër nekkul ab royukaay ndax dañ ne laa taata li maxluuqin fi maasiyatil xaaliq Seydina Muhammad dane amul benn mbindeef moo xam ne mii yàlla may na ko lenn loo xam ne lii tax na mu am sañ-sañam euh, ñu koy topp ci ak mu yàlla te loolu ak mu yàlla gu rëy rëy rëy ki defar boppam naa da koy bégalee jëkkëram na xam ne seen mbégte moomee seen musiba dong lay mujj seen sànja rek lay mujj seeni duma lay mujj suñu ko tuubut bàyyi ko ba leneen fekk leen ca kon daal euh, loolu muy wax moom euh, kenn amu cib sañ-sañ ku koy defin na xam ne moom dafa topp bànneexu bakkanam rek seytaane da ko not rek mu di ko def waaye lu araam la lu baaxul la mënu ci am benn sañ-sañ te it niroowut bokkut ak àq yi nga xam ne yii dafa nekk ci diggante euh, jigéen ak jëkkëram kon loolu daal buñ koy tënk mooy loolu muy def moom lu araam la ku koy def da nga ko war a tuub da ko war a bàyyi yal na yàlla doole di ma bi jaay suy na Muhammad sallallahu alayhi daa yoo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 sëriñ bi de sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéey